ñu dialogue ak yow touche pas ñu gi fa jaay la bakkaan yee asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ci nekk sa tur ak sa sant di leen ger di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitro di leen bëggee ko waxtaan ak yéen bu def benn euh, juste benn résumé quoi de l'actualité Euh, Sénégal et tout par rapport ak hier aussi Sonko génn na il a fait vraiment un discours magistral macha allah résumé lépp quoi li nga xam ni euh, bu mu gëjee génn wax na lépp bu fekkee nit yi son sont de bonne foi nañu xam ni wax ju am solo la wax wax ju am njëriñ wax joo xam ni nit képp kuy nit te yàlla baaxee la rek nga am xol bu rafet ak nopp gor nopp garmi di nga xam ni waxu nit la wax wax ju am solo la wax képp kuy mala mbaam xuux am xol bu bon ak nopp mbaam naan gudd nopp bu taxoon dégg mbaam kenn du ko ndulli ñoo nit euh, <laughs> yaakaar naa dañuy dee ci seen xol bu bon ak seen xol bu ñuul mais du tere on avance on progresse vraiment noonu la yàlla def ñëpp mënuñoo bëgg waaye daal la majorité des sénégalais euh, kontaan nañ ci waxtaan bi te am na solo te ku dégg tamit ku déglu dégg nga euh, de façon globale macha allah wax na ko mooy dina am ay reddition des comptes mooy maanaam ñi nga xam ni ñoo leen xiifal marloo leen rafle loo leen ñàkk loo leen seen alal sàcc seen alal fanal leen sosal leen tiiñal leen taqal leen ray leen ñooñu ñëpp bandi yooyu mooy bandi foncier yi bandi financier yi bandi fiscaux yi ak bandi crime de sang yi ñëpp bu leen boole ñu ne yoon dina leen topp donc bu dajalee loolu da nga xam ne dafa bëri am na ay nervi ci biir am na ay ministre ci biir am na ay maire ci biir am na ay député ci biir am na ay njiit APR ci biir bandi salté yëpp bu ñu leen boolee nee na dina am reddition des comptes maanaam li nga xam ne mooy justice dina leen topp dina leen duuti ba dina leen jàpp te ku ci nekk dina la futti li nga log di nga ko yàbbi kon ngeen xam ni loolu rek guerre la loolu rek war na doy sénégalais yi guerre mooy li ñu musul am sénégalais yi musuñu leen rendre justice Ablaye Wade bu mu fi nekkee rey na quatorze doomu aadama Mamadou Diop bu mbuur ci la deyee ay butitam génn ci mbedd mi oto bi jaar ci kawam justice amul ak ñeneen booy bu ñu rey ba bu ñu rey ci Sangalkam justice amul noonu la naax saayee Macky Sall la ñëw moom it attewul dëgg ci li mag Ablaye Wade rey Macky bu mu ñëw it moom rey na quatre-vingt-sept doomu aadama ñi ak ay mille cinq cent à deux mille détenus politiques yàq liggéey jàmbur et cetera et cetera kon Sénégal mi ngi doog a am justice mi ngi doog a maanaam Sénégal ñi ngi doog a commencé am yaakaar ni fii léegi buñ la tooñee mun ngaa mun justice mun na la fajal mun na la fompal say naqar loolu rek mbégte la boo xam ne sénégalais yépp benn président wala premier ministre musul jël engagement ne day faj naqaru doomu aadama yi ci tooñ ñu leen tooñ ci liñ leen teg ci musiba yiñ leen teg loolu mi ngi doo ko am Sénégal loolu rek buñ ci jot buñ ci yemoon sax mu neex bu dee ñun bëgg nañ dara bu ñu yemoon ci lu ko wax rek ne dina am reddition des comptes te politique lalu ko képp ku sàcc dërëmu sénégalais di nga ko goqi képp ko rey doomu aadama dañ la atte képp koo xam ni yow da ngaa financé pour ñu rey xale yi dinañ la atte donc loolu rek bu amee sax sant nañ ci yàlla sant nañ ci yàlla di wax alhamdulilah loolu rek doy na doy na vraiment ndàmpaay doy na xol bu sedd léegi nag loolu won woone ci sénégalais xaw ma ba xam comprendre ngeen woone leen ci yéen peuple sénégalais parce que yombul de gars yi ay milliards la ñu xam ngeen luy milliards ay milliards la ñu sàcc ay empire xaalis lañu am ay këru xaalis lañu am ay magasin wu xaalis lañu am yuñ sàcc sénégalais yi trésor public lañ doon gaare seen oto guddi jël xaalisu Sénégal yu duy ko ci oto yi bu oto yi wàcc ñuy dawal oto bii di mel ni oto mbott ñu duy ko xaalisu sénégalais dem seen yoon trésor public bii bu trésor public buntu trésor public mu doon wax bu yuuxu woon Sénégal tàkk parce que boobaa dina wax ni Macky Sall yàgg na ñëw fii ak ay nitam ñu taxaw duy teg ay blindé duy ko xaalisu Sénégal ba oto yi mënul tàkk ñu dem seen yoon kër yi nga xam ne tabax nañ ko Sénégal bu ñu doon mën a yuuxu kon heure bi bu ñu jëloon kër yi rek jaay ko yenn ñëpp ay tekki ku ci nekk yaa ngi yor ay junni junni kër junni junni oto boo doxaanee ab caga sax ji am yor oto bu tooy xaab yor kër lépp ñu fayal leen donc loolu lépp muy alal gu bëri bu ñu sàcc am nag doole ñu am temps boo xam ne douze ans yoo xam ni liggéey lu ñu sénégalais dañoo liggéey pour seen mbir dëgër ñii ubbi nañ ci ay presse ñii ubbi nañ ci ay journaux ñii doon ay patron presse ñii participer ci ay euh, liggéey ay patron de presse et cetera cetera ñoom ñu ñëw ba dem ba am empire récupérer presse bi teg à côté am seeni journaliste am seeni ñu leen di fajal am seeni ñu leen di fanal am seeni ñu leen di défendre muy ñaar ñu amay lobi am ay lobby étrangère ay lobby occidentaux yoo xam ne dañuy liggéey ak ñoom ñooñu ñu jox leen ñu yàgg leen jox pétrole bi yàgg leen a jox suñu gaz yàgg leen a jox suñu zircon yàgg leen a jox suñu or te ñooñu Ousmane sonk nee na leen dinaa leen dinaa def li nga xam ni moom mooy renégocier les contrats donc borom doole yooyu doon nañ liggéey ay lobby étrangère yu am doole donc dangay xam ni kon Sonko te na guerre ak lobby étrangère yi ak ñi nekk fii ci biir réew mi bu ko peuple Sénégal seetaanee dañ koy éliminer parce que Sonko moom kese munul bëgg sénégalais di leen xeexal ñoom kese sénégalais dañ ko ciy fekk si parce que xeex bu doy waar la xeex bu yombul la xeex boo xam ne dafa am ay lobby étrangère dafa am ñi nga xam ne ñoo yàgg jël ci suñuy am ay contrat yu ñu leen jox ñuy ñëw di ŋàcc suñu pétrole di ŋàcc suñu gaz nekk ci suñuy zircon nekk ci suñuy or yóbbu suñuy ressources naturelles te dafa yomboon ci ñoom léegi nag bu ñuy waxee déjà bu waxee ne day renégocier les contrat mooy foofu guerre dafay am guerre bu tar mais il faut que peuple sénégalais bi doon comme peuple malien bi peuple peuple malien bi dañoo taxaw Assimi Goïta peuple malien bi lan moo tax jooyuñu ay ceeb ay kii lan moo tax ñun suñu peuple bi ñu def ñu ay peuple ay peuple mala lan moo tax ñun suñuy dirigeants yi jàppee ñu ay peuple malade peuple malien bi jooyu ñu ceeb jooyu ñu ko te pourtant yéen a leen gën a lekk mais ñoom ñi ngi rayante ay souveraineté la ñuy wax question de souveraineté nationale la ñuy wax ñi ngi xare Sénégal bu ñu bëggee ndax ay les bouganeries laa ñu taxaw non wàññil ceeb bi wàññil courant bi mais xanaa xanaa yi ay mala lañ dañoo xiif ñoom lekk rek la gis quoi pour yow eh, libération moom mooy lekk quoi loolu saaga nday la man nanguma kenn di xeexal di ñu xeexal daal non wàññi leen ceeb bi ceeb bi mooy priorité what the fuck ceeb what the fuck ceeb lan mooy ceeb on préfère mourir dans la dignité que de vivre dans la lâcheté lan mooy ceeb ko nafata ceeb ko nafata diwlin yéen ko nafata diwlin peuple malien bi gën a sonn te instant yi ñuy waxu waxu réclamer ceeb ak diwlin parce que ñu gore lañ dee dee ci jub dee ci ngor boo demee tey Burkina peuple bi dañ taxaw autour autour de ki nga xam ne mooy Ibrahima euh, Koulibaly di ko défendre di ko protéger benn peuple burkinabé nekkul di réclamer jox leen lu ñu lekk jox leen ñu ceeb jox leen ñu naan ñun on réclame pas du ceeb on réclame suñu droit suñu souveraineté on on réclame suñu indépendance réclamé wuñ ceeb men ñun du ñuy mala yoo xam ne repasse lu ñu lekk dem tëddi nalaw du ñuy mala réclamé wuñ ceeb réclamé wuñ dëwlin on réclame suñ souveraineté question de souveraineté la mais du question de ceeb men na bouganerie la ces merdes là dañ ñoo manqué respect kii Ousmane Sonko di wax waxu souveraineté sa témbé si nda merde laa génn naa ay waxu ay loo wàññil ceeb bi wàññil dëwlin what the fuck question de souveraineté la ñu wax Burkina Burkina Faso ñu ngi protéger ki nga xam mooy Ibrahima Traoré du moins Ibrahima Traoré nekkuñu ci ay jooyum ceeb ay jooyum diwlin Mali courant amu fa nekku ñu tey lañ gën a bëgg kii di Assimi Goïta question de souveraineté la wax nañ ñu bu ñu fontoo ñoom kon Ousmane Sonko il parlait de question de souveraineté nationale fan la ceeb wàññeekoo sax de eh, dama bëgg ñu oh, ñu dugg ci question bi léegi fan la cee wàññeekoo yéen ñun ñoo leen gën a cher ceeb sénégalais boo indi fii Canada ne ko jëndal saako ceeb bu jëndee saako ceeb bi de bu ko calculer en CFA day daw ñoo gën a cher ceeb puuf Canada moo gën a cher Sénégal ceeb puuf France moo gën a cher Sénégal ceeb puuf moo gën a cher Sénégal ceeb puuf ngeen di jëndee saako ceeb cinquante kilos ay vingt cinq mille ak i trente mille. kaay fii indi sa trente mille yi ba xam di nga ci am cinquante kilo kaay indi sa cinquante mille yi ngay wax noonu léegi saako ceeb cinquante kilos yaa ngi ko jëndee vingt cinq mille wala vingt deux mille vingt deux mille cinq cent indi ko fii doo ko yóbbu doo fi yóbbu saako ceeb indi ko fii di xam ni yaa gën a yombale foofu buñ leen gisee ngeen di jooy ay ñenn nañu di jooy ceeb man ne ñii dañoo ils n'ont pas compris Sénégal la ceeb gën a yomb Sénégal la diwlin gën a yomb ñoo leen gën a cher diwlin ay sénégalais ñëw nañ ba tàyyi jóge Sénégal ñëw fii ma ànd ak ñoom di ndugg ji benn benn benn kii butéelu diwlin bu ma ko jëndee bu ka boo ko calculé aw oh, waaye yéen diwlin bi lii lay jar ñoo leen gën a cher diwlin junni yoon ñoo leen gën a cher ceeb junni yoon bi ngeen di jaay foofu ñoo leen ko gën a cher le en France vingt kilos trente trois euh, euros mooy presque vingt deux mille yën ngeen di jël cinquante kilo cinquante kilos ci ay vingt deux mille vingt trois mille il faut arrêter ça Italie cinq kilos ceeb douze euros donc voilà donc <laughs> là mooy foofu débat bi donc c'est pas pareil on doit parler des salaires mais du ay waxul ay waxul lekk ay waxu ceeb na gars yi liggéey am possibilité lu ñu am salaire yi baax ñii di ak ñoom bugaanerie yi di exploité nit yi di leen liggéeyloo di leen fay fay gu bon ñoom bugaan ñu tànc leen ñu fay ay taxe fay ay impôt pour mun a delloo ay ay ñoom ay ñoom euh, Madiambal Diagne di di fay impôt di fay taxe di participer ñu loolu la foofu la foofu la débat bi war a ñëw bu dee débat ngeen bëgg. bu dee dabaa ngeen bëgg laa la xam-xam rek ñu wàcc foofu nga xam ni kenn waratu fi wax waxu ceeb mais bu boobaa ay waxu salaire la ñu wax salaire gu baax bu ñoom buggaan di exploité doomu aadama yi bu ñoom Anta Babacar Ngom di exploité doomu aadama yi di leen liggéeyloo comme des lâches te duñ leen fay lu baax duñ duñ duñ leen cotiser impôt duñ leen fayal ay tax tous duñ ko def ñu nekk ci xetu ginaar gi ginaar yi di leen day di leen doxat koo ci gis mu ngi feebar te Anta Babacar Ngom mi ngi yor otom bu tooy xat di daw lu ko ne ñooñu ñooy lâche yi ces gens là la war a paqueté tée leen ñu fay taxe fay impôt ba pare ñu topp leen ci biir ñu mun a ñu mun a lijjanti seen employé nu leen di toroxale ak leen di exploité foofu mooy bi bu dee débat rek ngeen soxla ñu ngi toog ci débat bi boo leen ko ñëmee rek ñëw leen bu dee nag ay bouganerie la c'est connerie la à la bouganerie la c'est zanerie la loolu foofu moom na ngeen dem fële bu impôt yi buñ ko fayee rek lépp wàññeeku nañ fay impôt nañ fay impôt yi lépp lépp wàññeeku nañ fay impôt Ousmane Sonko mi ngi wax ci reddition des comptes di woo peuple bi pour ñu taxaw mais reddition des comptes nag dina am bu magistrature bi ñu raxas magistrature bi ñu raxas magistrature bi voilà ñu raxas magistrature bi ñun ñoo leen gën a cher ceeb foofu au Canada huit kilos ceeb coûte vingt quatre dollars euh, euh, dix mille cinq cent huit kilos ceeb joxal kenn Sénégal dix mille ba xam mu indi la huit kilo ceeb ba xam du la saaga ndey mun <laughs> voilà ñoo leen gën a cher ceeb puufa puufa puufa te ceeb bi bàyyu leen ko donc yéen a waroon sax gën a cher ceeb kon am na lu ñuy lu ñu ci liggéey ba seen ceeb xaw a wàññeeku ngeen ci mën a lekk na gars yi fay impôt moo gën di wax waxu ay wàññil ceeb bi na buggaan fay impôt yi na buggaan fay impôt yu mu yoreel Sénégal moo gën wax waxu wàññi ceeb ñun soxlawuñ mu ñu défendre ci wàññi ceeb nan nokk ca xaj nañu fay impôt bouganerie de merde la yooyu ça doit cesser mais ñun les protecteurs de ce projet on la là de boo leen bëggee jàmm rek jàmm boo leen bëggul jàmm doo leen daj ci Sonko de ñun ñooy ñëw attaqué waat leen rek ba mu tàng jër ñoo leen ba fu ñu newoon ñu ngi fu ñu doon bax ba léegi ñu ngi ñu ngi fay bax ñu ngi fay ngeer de changé wuñ de ngeen bëgg jàmm ñu nekk ci jàmm ngeen ñuy jaay xamadi <laughs> ñu fekk leen fi doo leen jege sax sonk ñun rek ñoo leen di écraser lem ba mu ron ñu teg leen donc Ousmane Sonko mi ngi wax ci magistrature bi magistrature bi c'est magistrat véreux bu ñu leen fi jëlee ba raxas leen ba bale leen incha allah dinañ def lu ñu naan reddition de comptes donc ñoom xam nañ li nekk ci magistrature bi xam nañ ko bu baax de façon globale il parle de renégocier les contrats sa waay lii nii peuple yi ñu wër nii ñoom ñëpp ñu ngi kontaan <laughs> ndeysaan peuple malien bi xiif nañ mar nañ amuñu courant rafle nañ mais ak ñoo bëgg Assimi Goïta xam nga lan la def parce que dafa ñëw dindi complexe bi jël jël blanc yi jël France sànni leen ca xaj génn CEDEAO taxaw dëggal boppam jëmal boppam ñu naan ay dañ koy embargo faalewu leen peuple bi taxaw ne ko tey lañ lay gën a bëgg tey lañ lay gën a fonk foog embargo CEDEAO lépp lañu yemale ñun asimi yow lañu wax ñun seen souveraineté national la ñu soxla génn fi euh, français yi mu dóor leen ca xaj peuple bi yëpp kontaan peuple bi yëpp taxaw di jubilé wallahi la asim ñooñu ñoo xam lan mooy souveraineté national kenn defe naa yow eh, may ñu ceeb may ñu lu ñu lekk may ceeb dañ taxaw bëgg ñëw jël seen or di xoolal ñëw nangu lépp or bu bu France doon kii ñu ñëw nangu or bi di ko gérer seen bopp loolu mooy fierté kon tey benn peuple d'un dirigeant bu taxaw ne je vais renégocier les contrats ay contrat yu fi gars yi bàyyi woon yàq réew mi jël suñuy ressources tey la ko tubaab yi je vais renégocier les contrats bu doon un Afrique fier boobu ñëpp ay tàccu di yuuxu booy gars yi fier ci seen bopp naan daan yee di gis seen bopp di xam ne lii souveraineté am na am nañ dirigeant bu am fit bu taxaw ne day renégocier les contrat kenn ñemewu ko. bu dee dëkk yi nga xam ne nag dañoo xam dañoo xam lan mooy lan mooy contrat yi nga xam dañ ko signé ak occidentaux yi ah. ak oligarchique yi mooy kii euh, euh, entreprise oligarchique yi dëkk bi xam loolu laa la dëkk dëkk wax ma ay dëkku dof yi dëkk yoo xam ne nit yi wéruñu giñ xiif lekk rek la ñuy gis bu ñu lekkee ventre plein nègre content non non non je parle pas de ça je parle d'un pays très éveillé mentalement bu taxaw yoo xam ne bu ñu déggee benn dirigeant bu taxaw comme Mali lu mu def ne je vais renégocier les contrats wala je vais foutre l'armée française dehors peuple bi dañuy gën di jubiler loolu boo ko waxoon Burkina je vais foutre l'armée française dehors dañuy gën di jubiler booy burkinabé yi boo boo génnoon tey jii Mali ne je je vais renégocier tous ces contrats là du ko bàyyi ak tubaab bi du ma ko bàyyi ak multinationales yi dañuy gën di jubiler te loolu la seen dirigeant wax démb loolu taxaw taxaw devant kenn ñi ma ko def loolu ñoom gëjoon nañ ko gis ci ñoom Sankara ay ñoom Lumumba gëjoon nañ ko gis ci ñoom Assimi Goïta lañ ko déggaat ci ñoom euh, euh, Ibrahima Traoré lañ ko déggaat ci président Niger lañ ko déggaat ci Sénégal Ousmane Sonko ko fi njëkk def kenn amul fit bi Abdoulaye Wade defu ko Abdou Diouf defu ko Macky Sall defu ko kooku loolu fierté sénégalais la war a doon. fierté sénégalais man j'étais fier hier dém démb laa sentir ni man adhéré na ci mouvement panafricaniste parce que le discours de Ousmane Sonko a été très panafricain il parle de renégociation il parle de souveraineté nationale il parle de souveraineté alimentaire il parle de l'autodétermination damn sama xol sedd ma ne kii dugg na ci sama monde dugg na ci sama sama environnement j'étais fier démb laa yëg ni kii ma àndal nii c'est un panafricain avec son discours panafricain boo xam ne gën nañ ko dégg ci ñoom Thomas Sankara ci ñoom ay Lumumba ci ñoom ay Ibrahima Traoré ci ñoom Assimi Goïta tey ñu am benn dirigeant bu mel noonu taxaw yor ay discours panafricain képp kuy panafricain war cee yëg sa bopp waxuma na ay xar ay bëy yu xiif naa leen wàññi ceeb mbee naa leen wàññi diwlin mbee mel ni ay mouton de panurge ñun on n'est pas des moutons de panurge nous on quémande pas là pour vivre nous réclamons la souveraineté alimentaire nationale te démb loolu la Ousmane Sonko euh, wax ay reddition des comptes